jërë ngeen jëf uh, mbokki internet yi ginnaaw bañ leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfal uh, ñoo àndaat ak yéen ak uh, Serigne Bara ci kàddu leeral yi mu yëkkate jëmale ko si audio yooyu nga xam ne ni aji saara ak ki nga xam ne mooy Baye MC ñaas kàddu yi leeral mu dem bay xam ne ne ñi ko seq seize personnes lañ te loolee ñu seq noo ne mbirum góor ak jigéen am na ca te eh, boroomi daraja ak ñi nga xam ne ni jiite nañ ci réew mi ñoo ko seq ak ki nga xam ne ni mooy Adji Sarr Baye MC Niass nag eh, yëkkati na ci ay leeral ba joxe li nga xam ne ni moo di audio yooyee eh, ñu déglu sëriñ Mara Serigne Bara Ndiaye si kàddu yi mu yëkkati. jël na ne itam xaalis la ciy wut. buñ ko joxee xaalisam li muy def lépp film la boo xam ne dañuy bëgg a fayeeku ndax mi ngi naan ko terrain laa ci bëgg bàyyi may ne ko bul jël terrain terrain dafa wóor dañ la mu ne kon ma laaj leen kele amee bàyyi ne ko laaj laaj leen kele amee mu ne kon ah, ma laaj leen kër loolu mooy li wér léegi nag acte bii bàyyi mbay def am na nañu mu naqari nag ndax buñ sañoon dëgg du feeñ waaye képp ku mu neex mhm. man maa lay ñaan bu subaa mhm. soo jullee ajjuma ba pare mhm. na nga publier bàyyi mbay ci sa whatsapp sa statut wala sa facebook wala foo ko mën a def ñu ko ba Sénégal gépp xàmmee ko xam ne kii mooy bëgg dëgg kii mooy ki fekk dëgg nar a réer mu feeñal ko kii mooy ki Sénégal naroon a tàkk mu di lijjanti ko. xam naa nag Sénégal gépp ñu ngi ñu ngi ñu xam. Mm-hmm. ci li ma wax ñu ngi xam. waaw léegi nag gis nga enregistrement bii. bu ndaw la bu ndaw. man maay waaw yàlla daa ñëw. yàlla dafa toll ci leeral. Uh-huh. gis nga enregistrement bii aji saar di waxal boppam ne Sonko si ko lëng man dara lii ma nettali. waaw bu ndaw la daa am beneen bu ko gën a original. Mm-hmm. gën koo leer gën koo tegu. Mm-hmm. te ñi doon complot. ñoo ko enregistré enregistrement boobu nag mhm. moom itam mi ngi fi mhm. waaw waaw xam nga nuyu la de dafa am ñoo xam ne xam nañ ne ñoom sonko la ñuy comploté waaw mais dafa am ñu bokk ci biir te xamuñu ne xamuñu ne sonko la ñuy comploté xamuñu lu xew mhm. mais biñ gisee yunnu yunnu jee coow li xam nañ naa fii daal am na luy waaj a xew ñu ja ñu teel a jël seen i défense am na ci koo xam ne moom bi mu xamee ni lii wóor mu laaj gars yi lu ngeen di def nit ñu ne ko non bu sottee nga xam ko moom dafa décroché enregistrement commencé appel bu ñu ko ci woo enregistré na ko message bu ñu ko ci bind enregistré na ko. su ngeen seetloo. ginnaaw bu mbir mi jeexee kooku topp nañ ko. dem këram dugg fa Babacar Touré wax na ko. yàq nañ fi otoom. Mm. daw na fi di tux. Mm. nit ñi naan nit ñi naan nit ñi naan luñ koy toppee liñ ko doon toppee mooy enregistrement yi mu yor ci téléphone am. Mm. enregistrement yooyu lañ ko doon toppee bëgg koo nangu. enregistrement yooyu nag maa ngi dalal xelu gaa yooyu doon kompaloo ki doon woote naan ko mais yow kii kii bi kayit bi kañ koy jox waa ji na ko noonu semaine prochaine. way ban semaine prochaine foo nekk mu ne ngor mu ne man damay ñëw ngor jël si la mbaa ñu ne ko mais est-ce que mën nga maa wax li nga ma dugal lan la quoi mu non non téléphone dem whatsapp kon ma wax ak yow hmm. wax ah te borom numéro bi 60 xamal ne affaire bi génn na ci loxoy mi ngi ci loxoy yu bari man nii deglu naa hmm. deng, waaw jëratul nga di ak affaire bi bu juge rek ak deug jot jëf kon yoyé ñoko bokku deglondo muy yoo nga xam ne ni bàyyi ko na ci Serigne Bara Ndiaye di kàddu yi yoo xam ne ni kàddu yi yéeme la ndax audio yooyu noonu mi nga xam ne ni bis bu génnee ci dëkk bi loxo dina dem gémmiñ dina loxo dina dem gémmiñ ndax ñu baree bare ñu si fooguwul dañ cee laale ay boroomi daraja ak boroomi barke dem na ba naan ak kilifa diine sax ci la bokk.